ah di ñaan jàmm ci àddina bi di ko ñaan ci rawatina réew mi ñu yeewoo muy Sénégal di ko ñaanal kilifa diine yi di ko ñaanal kilifa aada yi di wax kan ni yàlla yàlla defal ñu saxadatu daara ni barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy leen di defal nag moom moo di comme tey nu ngi ci alxames mu tombe ak le mille août 2021 dañ leen di bàyyi ngeen dem yëg déglu yëglikaay li ñu indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 12 août 2021 dañuy ñëw ak ñu ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi tey xëtamu njëkk lëm ca xëy fësal maanaam Baye ja ak doom ja maanaam Double Less mi ngeen xam ak doom ja Balla Gaye numéro de duubalees nag Balla nga ko dékk ay loxo mu koy ñaanal yëglikaay bi dikkaat caw foto mu mel ni photo woowu boo ko xoolee sa xel dina am ci combat boo xam ne da cay dem maanaam yëglikaay bi nag loolu taxu koo jóg waaye la ko tax a jóg wala ka mu dalal muy wax ca ñaar ñooña moom moo di Amadou Kati Diop ma nga xam ne moom mooy coach su Fass ak Ndaka ndakaaru kati Jóob nag moom na loo xam ne nii daal maanaam soo bëggee dëgg-dëgg moom la gis ci diggante ñaar ñooñu muy lees ak Balla Gaye nee na bu dee ci wàllum xam-xamu bëri la ak technicité nee na kii nga xam ne nii moo di Balla Gaye numéro 2 moom baayam dabu ko ci nee na déedéet nee na sax pour nga gis ku dàq bëre Balla wala ku ko gën a technique kii nga xam ne moo di Kati Diop nee na loolu du yomb nee na sax da koo jaaxal li tax Balla Gaye numéro 2 maanaam heure bi fekkul réewum Sénégal defal ko la nga xam ne nii moom moo di maanaam bourse boo xam ne dana ko mën a may mu mën a dem jongante ji ci ay jeux olympiques nee na loolu su amoon ba tey Balla Gaye numéro 2 andil nañu ci réew mi médaille olympique ndax daa jàpp ne xam-xamam ci wàllu bëre foo ko takk weesu na ko moom Balla Gaye numéro 2 ka wax loolu nag moom moo di Amadou Kati Diop am na loo xam ne nag d'accordu ci ak Balla ndax nee na ka nga xam ne nii da koy muy mooy Balla Amadou Kati Diop nee na damay faral di dégg muy wax naan damay peese cent trente kilos ki nga xam ne nag moo di kati nee na ko loolu moom d'accorduma ci ak yow tey suba waxi noppi ndax sa papa bu dee sut moo la ko defoon bu dee yaram itam mu la koppoon te ko amoon doole la te poids masta passé cent dix moo tax daal lool daal la kati jàpp ne d'accordu ci ak ka nga xam ne nii moom moo di Balla Gaye numéro de waaye xam-xamu bëreem technicité am ak la muy bëree ne na pour nga gis ko ne na lu jafe jafe jafe la ñëwaat na tamit ci Mbaye Guèye ma nga xam ne moo fi jóge bu yàggul ki nga xam ne nii moom ci stade Demba Diop stade boo xam ne vingt cinq mille places la la fa duggoon ci ay nit ak itam la mu andi woon ci ab xaalis mel ni ki yooyu yëpp kati Diop xëyaat na tey dikk ci di ci wax keneen koo xam ne ni wala ba tey Mbaye géey moomu yàlla na ko yàlla yërëm la ñuy wax te xare ko aljana rek waaye ka nga xam ne nag moom la yëglikaay bi jàpp na tey ndonoolu diis a diis war na ci kawam te itam du ko wàcc ndax itam te mënu koo wàcce boppam du kenn ku dul Gris Bordeaux yëglikaay bi ne na maanaam ginnaaw génn àddina ak Mbaye retiré wu na ci écurie Fass parce bi ne kon Gris Bordeaux nekk nii daal la koy xaar moom moo di ndono loo xam ne lu diis a diis a la lu tegu ci kawam yëg li kaay bi ñëw na ci keneen koo xam ne tamit ba tey mu nga xëy di wax ca Mbaye Guèye muy Hippo Ngare ma ngeen xam di microcentral ci làmb ji nee na Mbaye Guèye balaa may nekk la nga xam ne nii moom moo di ab tëggkatam nee na la ma njëkk a nekk ci moom maanaam mooy koo xam ne dama ko daan contacter ci wàllum làmb ji loolu yëglikaay ba mu xëy wax nañu ko muy ci wàllum MMA bi xëy na woon combat boo xam ne dañ koo fisale mu war a dox ci diggante super étoile bu Lamsar Elton école de Balla Gaye yëglikaay ba nag ne na ñaar ñii xam nga fan la ñuy jonganteem ca wàllu MMA ba loolu daal la ñu yëglikaay bi xëy tey wax ka def booba combat nag du kenn ku dul moo gét ma ngeen xam mu nekk ci États-Unis di ab milliardaire di doomi Sénégal moo xëy taxawal boobu lépp combat ca wàllum MMA yëglikaay bi moo tax mu dikkaat ci ñaari mbër yi seeni palmarès bu dee super étoile boo xoolee vingt et un combat jongante na ko ci la nga xam ne moo di làmb ji am lu toll ci quinze victoire ak lu toll ci cinq défaites yëglikaay ba tamit ñëw na ci benn saa verdict boo xam ne am na ko mu mel ni keneen ka nga xam ne moom la ko seqal muy ka nga xam ne moo di Elton vingt combat la jot a jongante am ci quatorze victoire ak six défaites yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di wax lu mel ni ki noonu waa Fatick moom la nu bëgg mooy la nga xam ne nii daal moo di drapeau chef de ba ñu tegaat ci ay loxo ka xëy di wax loolu nag du kenn ku dul ka nga xam ne moom moo di Mamadou Mendy ma nga xam ne moom mooy président CDG bu Foundiougne la mu xëy di wax daal ba ne na daal Fatick daal fi mu nekk ni daal seen objectif ne na daal li bëgg li ñu bëggaat daal mooy fexe ba drapeau chef de l'État ba nga xam ne rëcc na leen at yi ñu tegaat ci loxo waa Kaolack moom maanaam la ñu def démb moo ni maanaam ñàkku ya yëglikaay bi ne na boo bëggee dégg dégg démb lu toll ci cent cinquante acteurs yoo xam ne ci làmb la ñuy yëngatu daal vacciné wu nanu fa nga xam ne moom moo di ca Kaolack yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki loola nag bu buñ ko waxee maanaam la xel di dem mooy coronavirus ba daal la gaaya di dànkaafu wala boog di ko mooy moy nu fa jógee dañuy dem les arènes les arènes nag la mënu xëy wan moo di Balla ak Tyson maanam ca lu jëm ci wàllum yëgalaatu kasa ya ak intérêt ya nga xam ne annoncé na tamit am nan ko yemu ca yëglikaay bi ne na dikkaat na tamit dinu fàttali na nga xam ne nii noonu la Balla Gaye numéro 2 defoon ba muy bëri bëreeg Tyson ba daan ko nee nag la ko ko yóbbee nee na Balla daa génn foo xam ne maanaam ca combat ba kenn yombu maanaam kenn maanaam kenn xaaru koon daal mu génn fa nee na mu la mu def boog moo wute ak la ña daan def ca bés booba yëglikaay bi moo xëy ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu yëglikaay ba yemuta ñëw na tamit ci ñoo xam ne ni ay mbër yu mag la ñu woon nekkoon ay VIP nekk ci làmba ji yëglikaay bi dikkaat na ci seen ay defet moo xam ka nga xam ne nii moom moo di Yaxya Jóob Yékini la Mohamed Ndaw Tyson Tafa Gueye ak ñeneen ñoo xam ne daal yëglikaay bi jàpp na ne ay mbër lañ yoo xam ne nii daal boo bëggee dégg dëgg daal fa ñu toll woon maanaam kawe woon na waaye nañu daanu yëglikaay ba xëy na tey toppaat ci di ko wax moo xam Gris Bordeaux la ba ci tafaatin yëglikaay ba ka nga xam ne nii daal moom moo di Kone Mamadou daal moom moo xëy di nu jàngatal lu mel ni ki noonu ci yëglikaay ba nga xam ne nii moom moo di les arènes ba tey yëglikaay boobu nga xam ne moo di les arènes ka nga xam ne nii nag moom moo di rëg-rëg la ñu xëy woon ba tey ci xëtam mu njëkk mel ni ki nag avant son quatrième combat avec wan sam ak avec one champion rëg-yëg yëgle kaay ba mu nga xam ne rëg-rëg daal soo bëggee dégg dëgg daal deuxième doosam daal maanaam fi mu nekk nii ci wàllum ñàkk ya daal maanaam jël ga looy amaat lay doon ngir nag mu mën koo may mu mën a jongante ji waat ca la nga xam ne nii moom la war a def muy quatrième combat wu MMA ba yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dina ko toppal keneen koo xam ne nii moom écrém moo ko sowe mooy soq boo xam sa cosaan yëglikaay bi ne day soq boo bëggee dégg-dëgg mooy kaadar boo xam ne ren moo jot a wàcc xam sa cosaan dal di bëre waaye ba mu wàccee itam wane na boppam bu baax a baax a baax yëglikaay ba xëy na tey dinu wax lu mel ni ki noonu ña nga xam ne nii moom seen ab dëkk wala fa ñu bokk la ñu jël yëkkati ko teg ko ca kaw moom moo di Duudu Saane ak Baabu saar ba nga xam ne ay doomi joof yor lañ yëglikaay bi ne na soo bëggee dégg-dëgg lambi simple ja maanaam bëri bi àndul ak dóor daal ñaari xale joof yor yii dey maanaam ren ñoo ca teg tànk teg ca loxo karawaase seen ay xeer jiitu gaaña raw dem ca kanam ak kanam moo tax yëglikaay bi jàpp ne na daal maanaam lambi simple ja moom maanaam waa joof yor ñoo ne ca kaw a kaw te ña ko def du ñenn nag kurul Duudu Saane ak ka nga xam ne nii moom moom moo di Babou Sarr ba tey yëglikaay ba tamit ca xëtam mu mujj mu ngi nu xëy wan koo xam ne daal daam sekk lan kay wax moom nag spécialiste la ci wàllum sport de combat nee na daal mbër yi soo bëggee dégg dëgg maanaam nekk nañ ñoo xam ne encadré leen daam ne na lu ko gën a jafe amul nee na encadré mbër moom moo gën a jafe ci luy jafe loolu daam sekk moo xëy tey ñëw dina ko wax yëglikaay yi nag tey fan koy tëjee fenn lay doon benn xale boo xam ne Mohamed Dione lañ koy wax yëgli maanaam nag xale ba dafa réer depuis ba ñu tëbaskee ba ajjuma ja topp ci tëbaski ga daal la xale bi réer xale bi daal Mohamed Dione la tudd yaay ja nday faal papam di wuyoo turu maa daan Dione yëglikaay ba wala boog nu ngi leen di wax ne leen daal xale boobu nga xam ne nii moom moo di Mohamed Dione képp koo xam ne gis nga ko na nga woote ci 77 242 72 34 cent 77 242 72 34 xale boobu ñuy wax Mouhamed Diol réer ay way juram depuis tabaski ba tey yàlla na ko yàlla nit yëglikaay yi tey loolu moo fi dikkoon ñu di leen jox dig daje suba incha allahu rabbi jërë ngeen jëf loolu la ñu yëglikaay yi indil tey muy sunu làmb les arènes waaye fi may njëkkee ak yéen tey mooy xale bi nga xam ne nii ah dafa réer ay waajuram xale bi ñu koy wax Mohamed Diol ba mu réere ak tey nag vraiment mu ngi bëgg a yàgg xam naa écran bi dina leen ko wan léegi Mohamed Diol écran bi dina leen ko wan léegi ba mu réeree ak léegi mu ngi bëgg a yàgg gis ngeen moom ngeen di gis noonu ci ecran bi xale bi Mohamed Diol lañ koy wax mu nga dëkk Caaroy biñ tëbaskee àllarba alxames ajuma depuis boobu ba tey la réer xale bu tuuti la boo xoolee image yi noonu di nga xam ne kii vraiment xale bu ndaw la way juróom bu jigéen moom moo tudd Ndey Fall way juróom bu góor tudd maa daan Jool kon képp ku ko gis ngir yàlla nga woote ci 77 ah 242 72 34 77 242 72 34 képp ku gis Mohamed Jool moomu nga woo ay way juróom ci numéro boobu boo ci wootee mën na am di nga jot ay way juróom te boo leen jotee di nga leen dimbali yàlla na ko yàlla nit barke yonent bi sallallahu alayhi ndax xale bi nag Euh, xulle comme li ñuy wax rek mën nañ ne suñu jarbaat la ndax jarbaatu commissaire la commissaire bi ànd ak Balla Gaye 2 xale bi jarbaatam la te itam olof na genn golu gudd na loo waaye loo ci laal mu yëg ko te ku bokk ci gétt gi naan ci meeme ndax commissaire ku na xam na ne ba làmb di débuté wala ba Balla Gaye 2 di débuté ci école Balla Gaye ak ñoom ñoo bokkoon ak ñoom lamin fay ñu naan ko Lamine Gola ñoom ñoo débuté ndoo mais gis nga yàlla li muy def tey Balla Gaye tey moo nekk sampion bi loolu la yàlla dogal ak ñeneen ña ñoom lees ak ñoom Elton waaye xale bi daal képp ko gis rek nga jàpp ci te yàlla tax woo ay woo ci numéro yi nga xam ne joxe nañ ko bu buñ fa jógee dañuy ñëw nag continuer ak yéen ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb tey xëtam mu njëkk la mu ca xëy wane tey diggante ka nga xam ne nii moo ak Euh, doom ja Balla Gaye numéro 2 ka xëy di ca wax nag di Amadou Kati Diop Amadou Kati Diop nag la muy wax ci côté Balla gay lenn la nee na Balla Gaye 2 ka tey wax de moom ngeen di gis noonu ci yëglikaay bi nee na bu dee xam-xamu bëre technicité man a bëre bëre pire nee na boo koy wër yemal ci Balla nee na moog lees bokkuñu sax ci côté boobu nee na lees Balla ku dàq bëre ba di ko may loolu la wax yemu ca nee na rakkam saa Cees sax nee na ñoom ñëpp boo leen dajalee Balla leen dàq bëre Amadou Kati Diop Fass Ndakaaru moom moo xëy waxee noonu yemu ca am na leen loo xam tamit wax na ko ci la ci loo xam ne àndu ceeg moom parce que nee na day dégg Balla di wax naan day posé cent trente kilos te nee na lees papaam moo ko sutoon ëppoon ko te cent dix-sept kilos mosu ko romb kon nee na loolu moom d'accordu ci loolu nag ay waxi technicien la waxi borom xam-xam la defe naa ne loolu Amadou Kati Diop moo ko wax wax jooju nag euh, defe naa ne euh, ah. ñun de fekk wuñu les bi muy bëri wax dëgg yàlla wala buñ ci gisee tamit ñu ci jot a gis li mu la ci ay image lañ ko gisee mais suñu ko tiim ni muy bëree waaye Balla nag tiim nañ ko mu bëree ci ay mbapat ndax bi muy bëri Assane Diouf fii lamam jak tafaatin stade Assane Diouf kere ku ne gis na guddi gu na mu metteewoon gis nañ ko mu bëree li tafe frappe bu mu débuté carrière am ba fi mu nekk nii waaye wax dëgg yàlla li olof naan lu bañ bañ njomboor waxal ko guddi noppam ak mën a dawam ku mën a bëri la loolu moom dafa maanaam dafa am. loolu nag li koy maye mooy boo doon ne deret ji ci jur ba pare du tere nag yow yaay dem ñàkkante ji ko parce que da ngay dégg euh, père Birahim Ndiaye wala père Max Mbargane naa la bi muy ñëw sama mbappat wala suñ sax suñ per père booy bambara daan na ko yàlla na ko yàlla yërëm bàll daan wër mbappat yooyu yëpp daan fa wane boppam ña ña xamoon làmb nekkoon ay magi làmb xalaat ne xale bii ëllëg boo amee encadrement dina nekk un vrai champion loolu tey moom la yàlla dogal xam naa yi itam loolu mu wax foofu la ko teg ci côté xam yaa ngi dégg ba tey kat yi yemu ca ba tey ci yëglikaay bi gisaat ngeen ko ci suuf ginnaaw bi mu waxee wax jooju ñëwaat na ci mbay géey di fàttaliku ah mbay géey di waxaat ci moom ne mbay géey avocat wu làmb la woon maanaam ku daan layal làmb la Amadou Kati moom wax loolu ne na mbay gi ku daan sonnal làmb la wax na dëgg ndax defe naa sonnal làmb man ta passé nga sance écrit bu ñuy wax écrit face ah bëre ba bàyyi bëre encadré sarak Moustapha gi te yemoo ci moom nga encadré yeneen yi mbër ñoom zàlloo ñoom roog mbalax ah ak ñoo xam ne ñoo leen magoon sax dem si tubaabu joor ñoom père Birahim Ndiaye ñoo ñëpp koo ci wax mu wax la mbay Guèye te ñu ci bare bare bari ay poulain wu Mbaye Guèye la ñu doonoon kon defe naa kooku bu ñu nee avocat wu làmb la woon dëgg yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana kat yi moom moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu yaa ngi dégg ba tey sax ci waxi kat yi jooju am na ci loo xam ne ci Balla Gaye wax na ko parce que daa jàpp ne Balla maanaam buñ ko joxoon médaille olympique maanaam buñ ko mayoon bourse du moins na na kon heure bi indi nañu médaille olympique ndax mën a bëri am kat yi wax na loolu ba tey bu nu continuer ci yëglekaay bi ci suuf gis ngeen Gris doo noonu mu yor ay sengorom soto kom soowam yëglikaay bi nag nee na Gris ah héritage bi mu maanaam li mu nar a doon dina dis de parce que yëglikaay bi nee na ginnaaw mbay géegi ba mu génnee àddina dafaa géey ku ne yëglikaay bi nee na presque sori na écrit kon Gris fi mu nekk nii ah mu neex mu naqari loxo mbir maa ngi ci ay loxom nee nañ nag dina diis waaw mën naa diis mën na bañ a diis sans dépasse ci moom te Gris itam wax dëgg yàlla ban ko xamee mu takk ngem di bëree ba nii Écurie Fass lañ ko mas a xam mu di fa bëree te itam mu suñu koo dégg mu def wala mu jëf-jëf joo xam ne ah ci li ñu xam ñun da nga naan jëf ju doyati dëgg jëf ju doyati la ça veut dire que muy neex muy naqari mu ngi biir Écurie Fass na fa lu ne ci wàllum ndam ci neexaay waaye dund na fa lu ne tamit ci wàllu naqar ci defet te wul mu nga fa kon defe naa tey li mu wax bërki dem ci mbéy gi te jokkoon na ak man téléphone yaa ngi dégg wax nañ tan waxtaan nañ euh, maanaam li waroon waxtaan wi nag xëy na dañ doon waxtaan par rapport ak ma ko doon jaale gi ndax Gris Bordeaux ku ko jaale mbéy gi wàcce nga mais yaakaar naa ne Gris daal xam na li koy xaar te gëm naa ne incha allahu rabbi dana sol dal la ba Mbaye Guèye soloon taxaw taxawaay ba Mbaye Guèye amoon ak ba Tafa Guèye amoon pour écrit bi gën a continuer te defe naa itam loolu moo koy war ndax fi nga xam ne lépp fa nga ko amee fa la la àddina xamee amee teraanga defe naa ne boo ko bàyyee mu nax saay rek def nga la la warul te yaakaaruma giri nangu loolu keneen koo xam ne tamit doomu faas la gis nga noon ko nen ci kaw muy Hippo Ngare microcentral lamb ji ku ne xam na ne faas la dëkk te itam faram waa faas nëbbu ko kenn même bu yoree microcentral am loolu Sénégal yëpp xam nañ ko ci moom parce que Fass la juddoo bokkoon ci ñu mbay gi daan ko tëggal ne na itam nag balaa muy balaa mu daan nekk batteuru mbay gi daan ko tëggal Hippo Ngary nee na maanaam li mu njëkkoon a nekk mooy partenaire am ci wàllum xam naa contact baak yooyu kon defe naa ne kon loolu moo la yoon ne Fass comme li ñu leen di bàkkee rek ku fa judd faaw nga mën a bëre ndax dama daan dégg ñu naan dañ daan bëre ci côté tappaat yeeg yooyu tàppaat bu ñu ko waxee mooy baraak yi nga xam ne ay kii la te dañ daan bëre di daanante te pont yi du leen jàmm ça veut dire que kon foofu ku fa juddoo faaw bëre na ci yow keneen koo xam ne nii am na lu mu ñu indil muy moo get gis ngeen ko noonu ah ci combat MMA indil nañu ci Elton ak ki nga xam ne nii moom moo di super étoile indil nañu ko muy loo xam ne loo ama am solo la yaakaar naa ne ñaar ñooñu itam ah nekk nañ ci làmb di fi wane seen bopp tey ñu ngi nekk à l'étranger muy États-Unis defe naa tey su leen moo gét mayaatee boobu sens ah xëy na dina incha allahu rabbi dinañu jéem a prouver ñu xool ñoom ñaar parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci ne jàmbaar nga muy Elton muy super étoile ay nit ay mbër lañ yoo xam ne ay mbër waada lañu ba tey damay continuer ci yëglekaay bi par rapport ak ki nga xam ne nii euh, wala euh, ci côté vaccin bi waa euh, Kaolack. mu mel ni ah démb génn nañu en masse ñëw ñàkku si jël vaccin bi loolu nag mooy li gën a wóor ndax lu toll ci cent 153 personnes la ñu yëgle kaay wax ne démb presque ci li wër làmb foofu ñëw nañu génn ñàkku ji xëy nag mënu na ko sa gën a waaye loo ci mën a dégg génn nañu Kaolack loolu nag dañ ciy félicité waa région de Kaolack yi yëngu ci làmb lépp rawatina président CNC bi nga xam ne fa la dëkk muy Bira Sène waaw mu mel ni kon ñàkk bi dañ ko dem defi rek keneen koo xam ne moom soriwut. Mm, Kaolack ndax ñoo diggalooy tool muy Mamadou Mendy waaw Mamadou Mendy moom la mu xëy xamle ne na seen objectif daal fi mu nekk nii ñoom waa Fatick mooy fexe ba dara possibilité ñu jotaat ci ndax ku ne xam ne at yi dañ koy ñàkk moom du wax loolu nga moom ngi di gis noonu waaw loolu nag Mamadou leen koy may mooy liggéey rek waaw faw ngeen liggéeyaat de parce que nag actuellement affaire yi dafa dafa dafa dafa tardé xëccoo bi daa métti de léegi pour nekkati ko dëgg teglante di ko jël dara possibilité du yomb de ndax Jurbel kenn ñëpp ngi doon naan Jurbel Jurbel waaye defe naa ne ren fa la mujj ñibbi de loolu mooy di am les arènes la ñuy dem fekk fa euh, ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye de ak Mohamed Ndao Tyson yëglikaay bi du ñuy wax revoli euh, euh, revalorisation des kase ah ak intérêt des annonceurs loolu yëpp yëglikaay bi ñëw maanaam yëkk yëkkati maanaam kase yi ajuwaat ga mu aju ak tamit intérêt ya annonceurs yi amoon yooyu yëpp nag boo gisee lu koy indi day am lu koy indi ndax jamono ju nekk ak li cay xew bu ñëwee ci wàllum ay kase yu am valeur dem ca kaw wala intérêt annonceur kooku moom ku yebu ne Mohamed ndaw Tyson jërëjëf ndax nag liggéey na ci lu am am solo Mohamed Ndao Tyson ci côté sponsoring côté côté kase bu aju ah wala bu war nañ ko ci wax jëf saa su ne ndax am na lu bari lu mu ci def waaye terewul yëglikaay bi topp na ci na Balla Gaye numéro 2 def ba daan ko. maanaam Balla daa génn fenn fu kenn génnul yëglikaay bi loolu la nu wax fa Balla jaar ba daan ko Balla nag ba muy bëree Tyson Kera defe naa ne na mu bëree ak façon ba mu bëree moo lay wan ne li Amadou Kati Diop wax léegi ku mën a bëree ndax njool mu toll ne Tyson nga xeex moom gëddu ko ngeen xeex weccooy korosé daw daje ah ngeen jàppante yow Balla ku ne xam na ne Tyson ko sut mais yow nga am nga jàpp sa loxo droite mu am fit bu toll ni dugal sa ans tëgg ko mbot sóoraale sa bopp bi nga koy mbot te yow yaa gën a suufe mais moom nga fexe ba boppam dugg ci suuf loolu moo lay won ne macha allah mën na bëre trop loolu mooy li am yéglikaay bi yemu ci ñëw na tamit ci ñeenti combat yoo xam ne nii wala ñeenti gars yoo xam ne ay euh, wala waaw wala boog ay combat yoo xam ne daal fu ñu ñëw li ñu defet ya ña ko am nañ ko amee moo xam Yékini la moo xam Tapha la moo xam Gris Bordeaux la ah ba ci tafaatin yooyu yëpp di ay mbër yoo xam ne am nañ ay defet yoo xam ne yëglikaay boobu les arènes xëy na toppaat ko la leen ko yóbbee ak la ko indi waa defet nag saa yoo ko waree am man dama naan cuune ngay doon bés boobu ndax la lay daan danga nga des fois mbër daanu jóg naan lu ma daan parce que fekk na sa adversaire njëkk na laa pare gën laa gaaw wala mu tànd la pièce nga dugg ci mu def la lam la war a def ndax ñooñu ñëpp ku ci ne seen nat kenn du nattable sa mën a bëre Yaxya Jóob Yékini moom bëre kenn du ko nattable ci moom Tapha moom moom la ñuy woolee technicien de technicien ci côté xam mu bëre Tapha Tine tamit macha allah bu mënu ko a bëre fii mu yegsi du fi yegsi mais loolu moo lay war ne làmb il fallait que ndaanaan daanu loolu mën ta ak rëg-rëg ak quatrième euh, wala rëg-rëg ak quatrième combat wu euh, euh, wan champion ba waaw ci wàllu MMA la ba tey ak doos ba nga xam ne war na ko jëlaat yëglikaay bi ñëw na wan ñu ci aw foto doos ba nag defe naa ne moo tudd Pfizer ah Ah, waaw defe naa noonu lañ noon lañ koy wooye de waaw loo ci mën a dégg daal ñàkk ba moom daa mel ni mu ngi koy xaaraat waaw moom euh, Omar Kane rëg-rëg pour mu war ko defaat soq tamit li yëglikaay bi ñëw na ci moom les arènes ak ni mu moom mi nga xam ne moom mooy cadre bi jot a ren ci xam sa cosaan bëree parce que boo xoolee cadre xam sa cosaan moom moo ca wàcc bëre yàlla may ko ndam ci diggante ma gàmmu gi muy combat boo xam ne vraiment am na fu kawe kawe fa fu mu ko yóbbu mel ni que tamit loolu am tamit lu mu yokkal xam sa cosaan donte yeneen mbër yi bëriwuñu ndax ñu ngi doon xaar tey ku mel ni mag ja jët li doon xaar euh, ku mel ni ondu la fu ak yeneen mbër yi nga xam ne ñu ngi fa ñu ñëpp nekk xam sa cosaan ñoom euh, Jordan mais malheureusement moom moo mujjee bëree far yàlla dogal pandémie bi ñu ajaat làmb ji nag loolu mooy ba tey joof euh, yor maanaam capitalu làmb la fi mu nekk nii ndax la ko waral bu nee joof yor xel day dem Dut Saane xel day dem ci Ibou Ndiaye Oboli waaye xel day ñëw ci baabu Sarr di beneen xale yëglikaay bi nag tey tey ci baabu Sarr la ñu ak Dut Saane nee na fi mu nekk nii joof daal moo toog ci kaw làmb ji li yi naan maa ci toog mais joof ñoo toog ci làmbi simple ji yëglikaay bi di les arènes moo nu ko xamal la ko waral ne na seen ñaari doom yooyu ngeen di gis muy Dut Saane ak Babou Sarr waaw parce que dëkk euh, séréer la te séréer ak làmb euh, ñoo ànd euh, te itam ñoom ñaar ay xale lañ yoo xam ne yu jar a bàyyi xel lañ Doudou saane li mu compétir ren bëri na parce que waxoon naa leen ko Gambie laa njëkk a moom moom boobu làmb ubbeegul fii ngemb ñëw nga xam ne kii ren dafa décidé làmb yoo ko fekk tamit même buy ñàkk di nga xam ne dafa ngemb ñëw mais terewul fexe na ba ëpp ëpple lu mu gañe ren ci lu jëm ci wàllu làmbi simple ji rawatina ci poids lourd bi muy bindu baabu Sarr tamit ci lutte simple bi wane ci boppam bu baax a baax a baax ci côté poids léger bi muy xale boo xam ne pour jar a bàyyi xel ndax tamit ñu mën a bëri lañ dëkk foo xam ne defe naa ne goxu mbër la muy jof yor fa ñuy jeexal nag mooy Dame Seck mi nga xam ne spécialiste la si wàllu sport de combat moom daal li mu xëy gis daal dana mbër yi daal dañoo naqaree encadré Dame daal loolu la xëy wax waaw moom la ñu noonu nag. ak bulu ak kiyam nu mu tuddati mooy seen ki yooyu ñuy takk seen blouson yi ñuy sol pour wàllum combat ah xaw ma euh, kii moom lañ koy wax ak takk ceinture am daal waaw moom daal ne mbër yi dañoo naqaree encadré waaw ma ne nag ah un bu bëggee yëgg de niveau il fallait que mu nangu ñu encadré ko muy wax nag bu dee lu dal mbër yi la moom ah nee na ñu naqaree encadré la bu dee lu am la moom du wóor du ma gënal man daal bëgg naa un sportif. nangu ñu koy encadrer di ko teg ci aw yoon parce que moo ko yóbbu ci niveau bi nga xam ne moom la ñu soxla wala moom la bëgg yaa ngi dégg kon loolu moo fi ñëwoon tey ci yëglikaay yi di leen jox dig daje suba incha allah rabi ci yeneen yëglikaay yi waaye balaa ñuy dem rek dañu leen di balu àq di leen baal hmm, di ñaan yàlla mu jéggal ñu defal ñu jàmm di nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi ñu suivre à travers Equivox TV di la balu àq des fois lépp lu ñu wax rek mu dëng ngeen jégal ñu ko xam ne njuumte la nit day juum mais lépp lu ñu def tamit mu jub rek xam leen ne yàlla munu dimbali bañ def ko waaye bu ñu sax nag lépp lu ñuy wax wala ñu ko di ko def wala ñu di ko tox lu baax lay doon luy amal njariñ askan wi lay doon mais encore une fois di wax que ni sénégalais yi nañu dem ñokku ji ndax coronavirus mu ngi fi te day rey te luy faat bakkan nag boo ko mënee moytu. moytu ko yàlla nañ ci yàlla dimbali aar ñu ci ku mu dalagul yàlla bu mu la dal ñi mu jota a dal comme na ma ko waxoon keroog bañ ne ci kër yi ak hôpitaux yi yàlla nañu wér ba dellu seen sago ñi nga xam ne nag génn nañ ci àddina ak ñeneen ñi génn àddina ci leneen yàlla na leen yàlla jéggal xare leen aljana barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sëriñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi di ko ñaanal xalif généraux yi nekk ci Sénégal yépp sëriñ Babacar Si Mansour xalif général bu bees bi nekk fii ci Yoff Laayeen Cenaba euh, di jaalewaat waa Cenaba ak waa Yof Laayeen waa Medina Baay waa Léona ah suñu mbokku xaadir yi hmm, Njaasaan ba ngay dem Nimzaat ñoom ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit waa jàngu bi parce que Sénégal réewum jàmm la te itam réewum teggiin la réewum wax lu baax la yal nañ yàlla saxal ci loolu te réewum teraanga la kon xulle di la jox di daje suba incha allah rabbi waaye sunu jarbaat boobu daal di Mohamed Diol nañ ko bàyyi xel. baay ba di maa daan jóol yaay ja di nday faal réer na depuis tabaski ba tey ban tabaski ba ba àjjuma ci ci njëkk la réer ba fi mu nekk ni ñu ngi koy wër gisaguñ ko yàlla na ko yàlla nit barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam